dal leen ak jàmm mbokk internet yi saf di seetaan Buzz M TV cant ak gërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi di leen jaajëfal bu baax a baax ñoo ko gisandoo moom mi di Adji Sarr tey jii nag la wax ne nag euh, dafa génn réewum Sénégal euh, ñu gis noonu yooyu image mu fuité aéroport de Genève tey jii la bésu tey bi nga xam na nag moo di le 26 mars mardi mu nek mbir mu doy war information yi ñu jot nak moy que ne di yaay Fatou Diagne euh, mom moko accompagner non dal euh, fexé ko rawale pour mu génn réewum Sénégal mom bi nga xamné nak façon toj-toj bu né euh, amal nako ci réewum Sénégal ndax jiñ fi ki di président Ousmane Sonko loo xamné biñu ko xolé dara amusi mom mi di Adji sar ginaaw lol nak ñi mu lu ni mel. jamono bi nag ñoo féete si pouvoir bi ñu jàpp ne nag yoon dafa war a wéyal liggéeyam eh, ba topp moom mii di saar ñu xam kan moo ko dugaloon si mbir mi dil bi nga xam ne teg nañ ko kan moo ko ko digal lépp dañ ko war a xam tax na nag moom mii di Adji Sarr mu bëgg a yolleeku génn réewum Sénégal mu nekk nag mbir mu doy waar am nañu jàpp ne nag eh, kii di président Ousmane Sonko même bu toppee Adji Sarr sax ba dëgg gi feeñ da koy baal ndax xam ne jigéen la loolu lépp euh, dafa waral leer daal ak lu man di xew dina leen toppal yooyee information moom biir Adji Sarr ndax mbir mi mujj naa leer ndax mujj naa génn Sénégal am déet wala gars yi dañ ko mujjee arrêté loolu lépp dina leen ko toppal